bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina imamillahi al-mahdi alaihi salatu wassalam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa lay daay ñu leen di nuyu eh, eh, di leen ziar seen mbokk seen xarit sen soppe ibrahim Abou Samb auteur écrivain mo fas yéene ñëwaat tay di waxtaan ak yeen ci analyse yi mu doon faral di def yenn point yi nga xam ni soxal na Seydina Limaamu Mahdi yu alayhi salaatu wasalaam wala soxal na histoire am boobu euh, tey nag ñu ñu dugg ci euh, point bu am solo boo xam ne yàgg na suscité débat ci ci milieu théologique muy mbiru tur boo génnee ci théologie sax même ci yeneen euh, pàcc xam-xam yi lu mel ni psychologie canalise sociologie

alayhi salaatu wasalaam turam mu ngi jóge ci ku ñuy tuddee euh, Mouhamad Ahmad Ba bu Romadi Mouhamad Ahmad Ba moomu nee nañ papay Seydina maamu bi maanaa euh, maam Alassane caw moo jiite woon délégation bu jóge woon tànk bu ngeen déggee tànk nag mooy euh, ñetti village yooyu di Ngor Wakaam ak Yoof mu jiite délégation boo xam ni ñu nee nañ dafa taaloon jihaad ñu don doon ko jàppale ñi ne dafa dafa demoon pour di dañ fa demoon pour di ko ziyaari ñeneen ñeneen dafa dafa demoon pour di fa jël euh, tarixa manam pour pour jébbalu ci mom ñom ak délégation bu joggé won tank lu ci mën doon amna ñu né Cheikh oumar la amna ñu né mohammed Ba mohammed Ba mohammed Ahmad Ba bu romadi mohammed Ahmad Ba bu romadi bobu mo jur euh, cheikhou ahmadou mi nga xamni momo mom mom la tuba bi ray ci geeru Samba Sadio bu 1875 li ëpp solo ci wax ji moy histoire indi na ni bi mam Alassane jité de délégation bobu ñu dem bañ panku penku ndax Fuuta mu ngi nekké penku ñu dekkone Dakar penku lañuy wax biñ démé ba fofu ba ba dem bi ñuy bi sëriñ bi recevoir délégation yi ba yegsi ci maam Alassane Diaw ci la dégg ci ba yegsi ci ci délégation bi jóge tànk ci la dégg ci kenn ci ndiggu ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci délégation boobu leer guy sikkar naan allah allah allahu rabbana allah allah allahu xasbuna ba sëriñ bi déggee lool nag te la leen wax wax ni laaj leen ci interprète bi ne leen ñii ñan la mën mu ne ko ñi ñoy ñun ñoy wa tank mu ne leen yéen du ngeen fekk ci diine diine mo leen di fekk ci dellu leen ca sowwu ba ngeen jóge won te bu ngeen demee képp ku gané adina ci yéen di goor na ngeen ko tuddé limam kon turu sayna limam alayhi salatu wassalam fofu la jóge bañ bañ bam fa jógee nak biñ ñëwee ku jur dom, muy goor nga tuddé ko limaamu bañ mat fukki limaamu ak ñent ci fukki limaamu ak ñeent moomu limaamu Kumba Ndooy mi waral waxtaan bi tay ci la bokk Seydina Limaamu alayhi salatu wassalam turum fofu la jóge waaye Seydina Isaa Ruuhu Laahi turam histoire tamit indi na ni Seydina Limaamu dafa ko leere bu wolere bu bu tuddoon ma ñoon jeen wolere mbobu bi mu ñewé euh dako bëggoon tuddé dom maintenant nag bi mu ko bëggee tuddee doom mébatoon ko Seydina Issa Ruuhu Laahi bi mu ñëwee bëggoon ko koo tuddee mais mu ñëw indaale turam bi mu ñëwee boobu Seydina wooteegul mu ngi am fanweeri at ak ñett bi ñu tegee ci loolu juróom-ñaari at ci la Seydina Limaamu soog a woote. kon Seydina tuddee Seydina Issa Seydina Issa wooteegul. foofu kon mënuñoo wax ni Seydina Limaamu mu daal dafa woote bëgg isaa moo tax mu jur doom tuddee ko Isa te amaana bu loolu amoon sax doom ji mën naa génn àddina balaa mu ko wut waaye lépp lu ci mënti am rek Seydina Limaamu bi muy woote fekk na Seydina saa gane àddina ba am juróom at bi Seydina Isa ganee àddina mu indaale ci dënn bi ñu bind ci Isa Ruhulaahi ci diggu ginnaaw gi ñu bind ci Isa Ruhulaahi kon turu Seydina saa daf ko indaale kon yooyu yëpp mooy ay mooy ay importance su tur nga gis ni nag mu am ab débat mu am débat boo xam ni daf fi soulevé woon jamono yi weesu ci mahdi yu ñu ne limaamul mahdi yu parce que bi ñu raconté histoire ni ni turu Seydina Limaamu juddoo ni mu ñëwee ñu ne yonent bi dafa waxoon ni limaamul mahdi yu Muhammad ibnu Abdullahi lay tudd te loolu xam nañ ni xadis yi yonent bi indi yi ñu indi ne ne ne yonent bi moo ko wax amu ci benn bu ci wax ni euh, limaamul mahdi yu muhammad ibnu abdullahi lay tudd loolu ay conclusion wu boroom xam-xam la te conclusion wu boroom xam-xam yooyu euh, bu fekkee ni ibnu taymiya moo ko njëkk a indi ki nga xam ni mooy ibnu kasir bi muy indiwaat waxi ibnu taymiya boobu noonu nga xam ni conclusion boppam la daf cee teg wallaahu alam ngir xadis yi li ñu indi mooy ismuhu ismi am na ci yeneen riwaaya yoo xam ni dafay indi ismuhu ka ismi am na yeneen waaye mën nañoo des rek ñaari yooyu waaye bala may dugg ci sax mbirum muhammad ibnu abdullahi boobu nga xam ni dañ koy wax ndax dañ ne yonte bi dafa ni turam mooy nekk sama sama sama tur turu baayam mooy nekk sama turu baay waaye dañuy des déjà ci absurdité wu débat bi am diggante non ak attribut ndax da dañ ne yu du tur attribut la maanaam dàkkantal la waaye le problème mooy dañoo mënul justifier pertinence su débat bi li tax mënuñu justifier pertinence débat bi mooy ba demee ci biir alxuraanul karim yàlla deful différence entre non ak attribut exemple bi ci gën a patent bi ñuy bi nga xam ni mën nañ ko joxe mooy yonent yalla yankuba ñep xam nañ ni yankuba moy turam israila surnom la bu mu am mais yalla subhanahu wa taala da koy wowe yankuba ci bir alquran da koy wowe israila ci bir alquran te lepp mom la ci djublu kon yalla da deful difference fofu entre nom ak attribut te le fait que tamit ñu bëgg japp ni attribut day am signification alors que non peut-être du am signification lolou ñenn ñi nga xamni bëgg nañ ko japp liñ téggu ñuko ko wër parce que ñëpp xam nañ ni Muhammad alayhi salaatu wasalaam Muhammad ci boppam turu Muhammad am na signification turu turu Ahmad am na signification comme ni koy yeneen yi nga xam ni dañ koy jàppee attribut parce bu fekkee nañoo jàpp ni Muhammad mooy turam dëgg yeneen yi ay attribut lañ wala ay surnom lañ yeneen surnom yi nga xam ni jàpp nañ ko yëpp ak Muhammad ci boppam ñoom ñoom ñoom ñëpp ñoo bokk ci am ay signification yu ñu leen mën a yu ñu leen mën a jox ndax mu Muhammad ñëpp xam nañ ni mooy ki ki nga xam ni dañ koo sant maanaam le glorifié Ahmad bu fekkee dañ ko jàppee sens superlatif bi mooy ki nga xam ni dañ koo mooy ki nga xam ni moom lañ gën a sant maanaam le digne le digne de gloire ko jàppee sensu akbar boo ko jàppee sensu ki nga xam ni mooy jëf-jëf ji day nekk koo xam ni moom la ñu euh, ki nga xam ni moom mooy sant moo tax nga gis yenn boroom xam-xam yi di di di wax naan Ahmad ba mu nekkee ca yàlla comme que moom mooy yeyoo woon di sant yàlla moo tax ñu tuddee ko Ahmad mu ñëwee ci mbindeef yi nga xam ne moom moom lañ war a sant moo tax ñu tuddee ko Muhammad nga gis ne diggante tur ak dàkkantal muy nom ak surnom wala nom ak bi même turu yàlla yi yi nga xam ne mooy quatre-vingt-dix-neuf yi dañ koy tuddee asmaaw muy tur dañ koy tuddee sifaat muy attribut kon yàlla en matière de théologie amul différence amul pertinence su différence entre tur ak attribut moo tax Seydina Limaam yu alayhi salaatu wasalaam ku mu tudd Limaamu ku mu tudd Mahdiyu ak beneen tur bu mu mënti indi le fekk ñu naan Mahdiyu attribut la waaye du tur turam dëgg mooy euh, Muhammad loolu teguwul ci base su xam ndax dèjà xam nañ ni rek amul benn xadis boo xam ne indi na ni Muhammad yow li maamul wax du yu Muhammad la lay tudd wala baayam Abdullahi lay tudd li yonent bi wax mooy ismuhu ismi mooy sama tur mooy turam mooy sama tur te dèjà am na benn borom xam-xam bu am solo bu ñu tuddee Muhammad Laay ñu koy faral di woowee Baye Diop def na ci benn document bu intéressant relevé ci également benn kii bu am solo que ni différence bi am ci turam moy nek sama tour ak sama tour moy nek turam ndax yonte bi waxul sama tour moy nek turam dafa ni turam moy nek sama tour tay yonte bi déjà amna au minimum amna 201 non léegi 201 yoy la motax ñu bëgg ci tan Muhammad bàyyi yenen tour yi déjà lolu ça devient inexplicable le fait que ñu bëgg lu tax mënul tuddu mustafa wala Mujtaba wala Mansour et bi ki dess moy yonent bi sax dafa waxul lool dafa waxul ni sama tur mooy nekk turam ismuhu ismi la wax turam mooy nekk sama tur fekkee turam mooy nekk sama tur dañuy teg misaam bi dañuy teg nattukaay bi xool ba xam turam méngoo na ak turu yonent bi wala turam ku ko tuddee yonent bi dina yell loolu li koy gën a firi mooy ismuhu ka ismi mooy turam day mel ni sama tur turam day mel ni sama tur mooy turu yonante bi dañ koy xool moom moom la waykat boobu wax ni euh, libaas ñang la yaakaar naa moom moom lay wax ni saamaam limaam mu rafet nga ay malaan bi maanaam turu Seydina Muhammad yi alayhi salaatu wasalaam day mel ni ay mbubu yoo ay mbubu yoo xam ni boo xoolee signification tur bi xool dayo tur bi boo ko solalee yonante bi mu jot ko rek xamal ni yelloo na ko boo ko solalee jotu ko maanaam méngoowul ak ay darajaam méngoowul ak ay euh, euh, meloom nga xam ni tur bii jomm na yonent bi jomm na ñu ko ñu koy tuddee yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax ismuhu ka ismi loolu rapport de conformité la dañuy xool tur bi nga xam ni limaamul mahdi yu alayhi salaatu wasalaam indi na ko ndax yellu na ñu tuddee ko yonent bi walla déet loolu nag euh, xadis bi nga xam ni bokk na ci xadis yi gën a wér ci yi dikk ci limaamul mahdi yu kayfa antum isa nazala ibnu mariama fiikum wa imaamukum minkum imaam boobu ñu tuddoon nga xam ni borom xam-xam yu bari dañoo dëppoo ci ne limaamul mahdi yu lay lay lay firi imaam boobu rek déjà mooy tur bi nga xam ni amul tur bu bu gën a mën a dëppoo bu gën a mën a yell ci ñu tuddee ko yonante bi ndax yàlla ci boppam moo ko tuddee imaamul musalim donc imaamillah yi nga xam ni mooy imaam ji yàlla tànn naka parce que danga koy firee comme ruuxulaahi nda nekkul ilimaani yàlla maanaam moo jiite yàlla mais imaam ji yàlla tànn comme ruuxulaahi nekkul ruu xam ni euh, ruu yàlla la mais ruu yàlla tànn lay doon wala ruu gi nga xam ni yàllaa ko moom wala imaam bi nga xam ni yàllaa moom donc mooy imaam gi nga xam ni yàlla moo ko tànn imaamul musalin dañoo xool ki mu jiite imaamu laahi dañoo xool ki ko jiital donc moo tax boo jëlee imaamu laahi amul benn tur turu yonent boobu turu yonent bi boo xam ni mën nga ko teg mu gën a yell ci ñu tuddee ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam que imaamu laahi te Mahdi ci boppam nga xam ni baatu Mahdi ci boppam nga xam ni mooy ki kiy jubal jaam ña kan moo gën a yell ci jubal jaam ñi ko dul imaam moo tax sax d'ailleurs toujours ñuy teg baatu imaam ci kanam limaamul mahdiyu imaam bi nga xam ni mooy jubal jaam ñi te moom la imaam saxir wax waxoon ni eh, dañ ne woon limaamul mahdiyu mooy ki gi jubal jaam ñi maanaam moo di ka jaam ñay xamee njub ca wooteem ba muy benn benn compilation wala benn résumé bu ñu defal ci ñaari ayat yi yi nga xam ni moom la yàlla subhanahu wa taala wax ni آه، إنك لا تهدي إلى سرات المستقيم أك إنك لا تهدي من أحبب من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء كون ديجا دني دني رلوفي أبسوردته ودقنت تور أك أتريبي دبا بنتي بغي إندي بكو أنتتنير parce que amul pertinence bu amé pertinence en matière administrative lay doon mais du nek en boo yàgg na tuddee ay yonentam ay tur di leen jox ay ay euh, surnom te surnom yeeg wala ay wala attribut yi nga xam ne moom la leen di tuddee du def différence bi bu leen di tudd ci biir euh, alquran bu dee signification wu max mahdiyu moom moo leen ëlëm ñu jàpp ni ma mahdiyu signifié wu lu dul rek kii jubal jaam ñi mais nekkul loo xam ni loo xam ni titre la bu muy ràngoo di wane ni day jubal jaam ñi waaye signifié wul que ni. Euh, limaamul mahdi yu mahdi yu lay tudd ci boppam loolu loolu tamit mënul opérant lu tax mënul opérant mooy ñëpp xam nañ ni euh, yonent yàlla ishaq ishaq ci boppam mu ngi jógee ci baatu hébreu bu ñuy tuddee saxak saxak mooy signifier sourire lu tax muy signifier sourire moom mooy yont yàlla ibrahim bi malaaka mi ñëwee te jëm ca loot ñëw indil ko nouvelle ne ko saarata mi kat dina ëmb bisaa bi ree googu saarata ree moom lañ moo tax ñu tuddee isxaq sourire boobu ismail mu ngi jógee ci ismail ismail ça ça veut dire que ni Dieu a entendu yàlla dégg na yàlla dégg na googu moo ñëw ci euh, diggante Safa maro ba nga xam ni euh, am na boroom xam-xam yu wax ni diggante Safa ak Marwa ba nga xam ni moom la yaayam Xaajara doon daw ngir bëgg ku sauver ku wàllu doomam bi yàlla déggee ba bënnal ba ba euh, indi zam-zam zam boobu noonu moo indi baatu Ismaïl di nga ko gis ni ci yeneen i ci yeneen ak yeneen i tur ba ci Muhammad noonu la amee signification yi ma ko waxee sànq waaye fi may tëjee surtout mooy diggante tur bii lañu ñu annoncé woon tur bii moo ñëw loo loolu dafa yàgg ci diine te loolu bu amaatee ci seen élément lu koy dëggal la waaye nekkul lu koy weddi lu tax ndax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam euh, ismuhu ahmad la la yonent yàlla isa waxoon mubashiran bi rasuli yay yaati min ba'di ismuhu ahmad ne ñu ngi leen di bëggalee benn yonent boo xam ni dina ñëw ci sama ginnaaw turam ahmad lay doon bi yonent bi ñëwee tudd muhammad que ñu def ay analyse ba gis ne Mouhamad ak Ahmad lii moo tax mu tudd fii Mouhamad lii moo tax mu tudd Ahmad li ëpp importance mooy Ahmad la yonent yàlla Isa waxoon Mouhamad lañ la tudd bi mu ñëwee bi ci boo demee ci ci lu ko jiitu ndax boo bëggee natt Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ay mbiram da nga koy natt ci ci yeneen yonent yi ndax loolu mooy misaanam loolu mooy delluwaayam yonent yàlla Isa Emmanuel lañu ñu woon Emmanuel mooy. euh, Inna Allah maana mooy Dieu est avec nous bi ñu annoncé Emmanuel bi yonte Yàlla Isa ñëwee ñu tuddee ko Jésus kon nga gis ne Emmanuel la ñu annoncé woon Jésus la ñu la ñu indi ñu dem ba mën a expliquer lu tax ñu waxoon Emmanuel lu tax ñu tuddee Jésus loolu beneen débat la mais li ñu mën a jàpp rek mooy Jésus Emmanuel la ñu annoncé woon Jésus la ñu la ñu indi kon ki ki nga xam ni moom mooy wax ni. Euh, Mouhamad ibnu Abdullahi la ñu annoncé woon te loolu sax kenn waxu ko ndax wérul dañuy xaar Mahdi bu tudd Mouhamad ibnu Abdullahi te nga xam ni euh, chiit yi ñoom jàpp nañ ni Mouhamad ibn al Hasan al Askari ñoom xanaa ñoom kon xamuñu ne euh, papay Mahdi yu du tudd Abdullahi al Hasan la tudd. ak ñeen yeeni mahdi yu yu yo xamne parce que amna ñu jàppoon ni mo euh, Omar ibn Abdou Aziz mom moy mahdi yu kon ñoñu xana japp ñu ne euh, Muhammad ibn Abdullah la mahdi yu war a tudd fi may tëjee rek moy ki nga xamni da fay japp ni fay xaar Muhammad ibn Abdullah mahdi mu nek turu mahdi yu manam mahdi bo xamni Muhammad ibn Abdullah lay tud mo ki nga xamni day xaar al masih bo xamni Emmanuel lay tud à sa naissance moo ki nga xam ni day xaar yonent boo xam ni euh, mu euh, Ahmad lay tudd à sa naissance bi maanaam jullit bi xaar Mahdi buy buy tudd Muhammad ibnu Abd ibnu Abdullahi moo chrétien bi xaar euh, yonent boo xam ni Ahmad lay tudd parce que Jésus moo leen annoncé woon ni Ahmad la tudd mu ñëw ni Muhammad ñu ne waxul Muhammad Ahmad la la wax moo juif bi nga xamni da day xaar al masih bo xamni Emmanuel la tuddu mu ñew ni waxu ñu woon Jésus Emmanuel lañ wax ñom ñett ñoo bokk àtte té ñom ñett ñëpp nak ñu ngi ci xaar bo xamni li leen ko tek moy euh, mauvaise interprétation des textes de des anciens li euh, Harouna Yahya waxoon ni le mal de notre temps c'est qu'on a sacralisé les textes anciens et, euh, les textes sacrés et les textes des anciens manam dañu sacraliser li nga xamni moy mooy alquran ay sacraliser également li nga xam ni mooy bind boroom xam-xam yi donc loolu mooy li nga xam ni bëggoon nañ ko préciser ci débat boobu noonu muy diggante tur ak at bi ndax ginnaaw euh, Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam euh, ismuhu ismi la wax wala ismuhu ka ismi yonent moom limaamul mahdi ak tur bu mu mënti indi bu méngoog buñ ko solalee yonent bi mu mat ko rek day daal di dugg ci turu limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam dugg ci turu muhammad ndax mom mo waxoon ismuhu ismi donc wa waaxiru daawana alhamdulillah rabbil alamin Apen mau gai, anam marjan gadu.